ñooy détenu yi ñoom dañoo njort ne am na kenn koo xam ne dali na rax maanaam ci ñoom ay information maanaam dem di ko joxe gi ne na en tout cas li am ba des sal garde pénitentiaire yi ne am gi ne na am na lu toll ci fanweer ak juróom benn ci ay détenu yoo xam ne dañu leen ber maanaam dañu leen a isolé Guy Marius Sagna ak waa Fra France Dégage ci yéene gi délibération daan nay ñaawlu bu baax a baax ji nga xam ne ñoo ngi koy tegg ñi nekk ci kasu yi yéene kaay gi xëy dañu xibaar moom la Soleil ne na njiitu réew

dala yéenekaay gi Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Iran Ndaw li ko dal neexul ah ndax lu toll ci fukk ak juróom cay plainte yoo xam ne gàll nañu ko cag ndoddam ndax dafa am ñenn ñoo xam ne dañoo njort ne Iran kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati maanaam kàddu yu ñàkk warma la yu mu jëmale ci Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne mooy xalif général des Tidianes yéenekaay gi du L'Observateur xëy dañu xibaar naan ñu dund gi jamono ji soo loo xam ne aju na ci lu ñuy dundee ak lu gu jéggi dayo fu la jëma yéen kaay gi de laas xëy di ñu xibaar naan ñu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nar naa pëcc xool lool ndax gisoon nañ lu toll ci 2700 listes la woon 2014 jamono ji nag gis nañ lu toll ci 3200 listes yéen kaay gi ne na andi nañu fi caution boo xam ne toll nañ ci fukk ak juróom ci ay millions waaye nag loolee yi bëri yéen kaay gi délibération xëy ci ne jéggi na dayo ci ci wàllum sa journal bi nee na bëri na agent yoo xam ne dañu leen a génn seen o jël nag ñoo xam ne maanaam bitim réew la ñu jógee wala fa la ñu jàngee yéen a kaay gii di record ak estat xëy ñu yóbbu Angleterre Premier League nee na bu rëy am na diggante Chelsea ak Manchester United choc bi ni ko suba la yéen a kaay gi nee na Edouard Mendy mi nga xam ne mooy góolub Chelsea bi ndax dina teree dugal ki nga xam ne mooy crise lu toll ci huit cent buts ma yéen a kaay gi di estat xëy diñu xibaar naan ñu Ismaïla Sarr jamono ji na gaay yi tiital nañ ko ndax dafa blessé moom Ismaïla Sarr du football ci week-end bi